yàllaa ngi dund te moo yor lépp yàll na nu may gëm guy dalal fu ne am xel tey seral fu ne xol yàllaa ngi dund te moo yor lépp yàll na nu may gëm guy dalal fu ne am xel tey seral fu ne xol moo nekk fépp te moo gën ñépp yàll na nu koy doyloo ko wét li koo koy fab yiwam wu ne jël du daanu mukk du jëm suufit du jëng du joy du lax du lox du faseeku cant yal na nu fal lu yàgg-yàgg du dañ nguuram du dañ dafa sax nguuram ga sax nii la buurub dëgg-dëgg di ñëw ka denc ay ngëramam moo gën ka denc dërëm ka denc yëpp ay mbërum kaamil mu mat mu ko mal mboolem ku wéy ak ku teew ak képp kuy xala ñëw koo xam ni am na ci gëm yal nay ku yàlla musal yal nay ku yàlla jëriñ yal nay ku yàlla yërëm yal nay ku yàlla teral yal nay ku yàlla faral yal nay ku yàlla bégal yal nay ku ñépp safoo yal nay ku naawe fi duniyaa dal fa xel mu ne dal yal nay ku yàlla bégal yal nay ku ñépp safoo yal nay ku naawe fii duniyaa dal fa xel mu ne dal yal nay ku dul dox fu ñuy tiit ak fu dee fi ragal yal nay ku dul gis lu ñuy tiit ak lu dee fi ragal firdaw si yal na nu cey teg bët ba dugg ca fa te sax ca seddu xol ak jaajëf ju ànd ku xel yi yépp yal na nu ñeel ak yàlla ak ngërëmam ak nguuram ak leeram ak taalum ndamam bu ñu wal firdawsi yal na nu ñeer ak fan wu gudd sut fan yépp sut gu rafet goo xam ni sedd na xol firdawsi yal na nu ñeel ak fan wu gudd sut fan yépp sut gu rafet goo xam ni sedd na xol mbir yal na foqati mboolem jur gi ceddo yu ñëpp jébbal nu fawwu ci barkeb sang yépp nu ñëpp jaamoo ko sante ko biir ak bi ci cantugu sax saytaane mer yàlla bég yonneen ba bég pexe jub yéefar yi yàl nañu tax lu gumba lottu ci ñépp ak ñeppi lotte ci ŋaaŋ ak téq fàtte dugub ñu alku yàl nañu mel ni dall fawwe fi lu muy sol di sant ka jëm kaw mujj seeni barab fa mujj seeni kër ak seenu jur ak lu ñu am ci yére ak lu ñu am ci saafara ki garab lislaama jar lépp moo rëy yal na dëkk fi nun mbootam ya dëkk fi nun ndam lépp dikk nu fab moo taaru moo tandu yal nay dox di ballakataa fi nun ba def nu de xam goo xam ni ñépp a ca lab waa fépp yal nañu dikk ak jàmm jàpp ci nun jébbal nu jur gépp ak mbir yépp sib lu nu sib yiw yépp yal na ba woo tey jii fu nekk te ñëw ne dàkk dëkk fi nun dàkkul nu luy taxalep li xew fu nekk te bon fajkat bi yal na ko faj faj yi nu cant wu sedd xol wu mucc ayib njëmbat gu bon fu mu am filkat bi yal na ko fil wuutal fa njëmbat gu tax mbir jub te ay bañ a jub ku nar lu bon yal na kos lëf ñëpp ba dootu nu tal muy sant kay tal lu ne kay sax ci jàmm ka jub yiw yépp yal na nu ñëpp nu ñii te yal na nu koy ñëpp awu ñëpp gu rafet ñëpp yépp waaju ko ñëpp buubal nu yiw yépp bii rek biti xëpp nu ndax nu dàq ci mooy saxal ci topp sant la ci dundal ci diine defar ci mbokk far ci lu bon fekk tawat rey ci biddaadu yi ci fecc li ci falee ci ay fale ci wiiw yàqlee ci lu xat yokkoo ci yokke ci biir ak biti làqe la ci dëgal ci ñépp rotal ci ŋañ ñi dàq ci lor gindee ci mboolem ñi réeroo am ci ndam falu ci boolee ci mboolem ñi réeroo nag fi benn barab boole ci seeni xolit noppal ci noppalu ci neexal ci ñépp ba koo gis xol ba sedd mu bég not ci jullit not ci yéefar jub ci xett li ci jubal ci juble ci faccig ràgg digle ci nag yiw yépp aaya ci ay jagloo ci sébbulu ci texloo ci ñépp ñu tex bayloo ci ñépp ñu bay yónnee ci ñépp ñu daw sekkee ci sekk li ci dadoo ko lépp lu bon jubloo ko lépp ngërëm sakoo ko sag cant ak saw tagg neexe la ci tabal sa bopp ak sa yiw yépp ak sa lépp ngërëm jébbal nu njébbal gu wér lii def ko lottu la ci lottoo ci lëf telewoo lëf lépp lépp nga man defal nu lépp lu sedd xol nu bàdd la ci sunuy mbir ak mbiri mboolem nit ñi am ci ngërëm lu dul dañ ak fan wu dul yem fenn sante la ci mboolem ñu nuy rëbbu biir ak biti yal nañu sooy ñi déekitiis ak yoxoy neen ak yu soof ak i jooy ñi nuy fexee lu ay ak lor ñépp yal nañu dem banoo ki ndam seeni xol ñor xom wow sori tooy man làqu naa ci ku lor dul jublu yal nañu def diggam bu taa bay bu baykat yépp wàcc mu booy tey dugg naa ci saxaarug yàlla deesu ma dog te jépp waa ju ma dog dog tis ma wéy mu ni wóoy ku ñuy fexee dogalee kay téq yàll nañu dog baatam ba nuy naata kay yokkoo kasant mu gooy yàllaa fi nekk ki jaamam jépp landa ju jóg dawoo ca mooma ki jaamam faw yàll nañu juy te bind yiw yépp yor yiw yépp yal na nu jox yiw yépp jox gu rafet moolal na ñépp ñu nooy kay fal di ful di mayee kay dolli yal na nu fal te ful nu may nu ndamag ndollem notal nu ko fuy kay yokk aw dig akub dig yal na yokkati dig wu nekk akub dig falug jub yokki tëng ki kuy waseefakub ñéefar ak saytaane yal nañu muy musloo ka muñ faw wa kay teggee ka xiifa ka yooy ñay fam mu ay wune biir ak biti yal nañu muy may jépp jàmm ka fammal yépp ay baduxuy ay yépp yal nañu wëlbit jëm ci gaayu nu moy nuy sant faw sunuy bañ yépp dëkk ci jooy te sët bi yar na ni cas lor yépp teg fi barab bas lor du génnati biir ak biti jëm ci barab te ubbi buntum ndox ak jàmm nga nii la ko yiw ci baaxam ak yërmandeem ak jàmmi képp ku jub buuroona yoo jeexaloo doo jeele la fi yërëmal te wàcce taw bi ba mbott ak ër dinaa wakatëb may nooti waame ba déeg ak deq fees ak xur ñalay moy ak ñala dul mooy ngay duyal dabi dab sotul nu waame yi nuy xuus ak ngërëm di jëlu kay gonta kay te xu yiw raw gàcce raw lu ñu sib yal naw xur ak déeg akub deq ak barab bu netaa faraasu yépp ni jàmm ak tex yi lëf bañ a nëpp la set du xol yépp dal xel yépp yal na bawoo tey jii ca kaw dal fi suuf ak barke lar bu ne fab ak wàll yal na ñëwoon mbaleen balaa gëma dem ndox ñëw balaa mbaq seewoo jàmm dong di jib ndox yal na ñëw taw bi ñëw ndax fit wu dem wu ne ñëw te gépp gëm guy fexee dem gis lu wér lu ko ngëpp ku nekk yal nañu fab ndam lépp jox ko mu ngëpp faw ak kuloox ak dugub gàññ ak ëree na ku sëpp ku nekk yal na amuk cant ak nawet bu rafet ñàkkuk tawat bari ndimmal téq jam rabi rab ku nekk yal nañu tëj kër ren di jépp loram tey ak ëllëg ba du fiiroo kas loram fi barab buurub aras fa nga may teg yal na gën fa ma teg saa bopp gën fa ma mbokk ak jaambur ak ku ne teg ñafas ci nun lu rafet loo tan yal na nga def ci nun lu gën lañu fas lépp ak lu gën lañu yëg saw yëw wu ñuy fas ni man am naa ko yar na nga fab woolee yi wëg wu ko suuxal fab jox nu ko nag njariñ lu ñuy foog a kay jortoo ka seenu ci nun yal nay lu nekk ci nun nekk yi nu mbég wu nu bég loo xam ni sedd na bépp xol ci wet gu ne yal nay ñëw ci nun faw ñëw goo xam ni lëf du ko fekk ngërëm ñu booti dërëm ak barke yàlla nañu nuy jëkkante faw wa ka dolley cant loola ki sag te yàlla na ñuy mucc ci ndog saa su nekk ka for dogub tiraanga bu seddub xol bu gën million yal nag tawat sori gépp cant yàlla na ñëw it gépp juboo am ñu fekk ay wépp jañ ko mu teg yàlla rafet yàlla na nuy jaayoo fa moo maka jar muy jar fi nun lépp lëf nuy jar fa moo maka jag moo jar lu nekk jaral mboolem ña xam lu ne yàlla na nuy jaral may nu gépp ngeen musal nu ci gat moo wattu lépp te moo xam lépp yàlla na nu def ñu xam la muy tere biir ak biti wattu ko ñoom moo takk moo takk léppit yàlla na nuy ñu mu def ñu jub ñu takku ñu takkit lépp fab ko mu jub ñu ñëpp yal na nu teg foo xam ni moo nu gënal tey ak ëllëg fa ñu nuy jortoo ka foo gaka teg dëppub jullit yal na raw bor sax ci wépp yiwam ñu jox ko kembam gu seddub xol gu buuru lewam ñu ñëpp yal na nu raw bor raw loram jotu yiw te dundee képp kuy rey diine donnu lewam ndimal lu sedd suñuy xol yal na ñëw ku ne am xelam wu saf wu ko saf ñuy ñee ku ne ku xewam loo xam ñi nii bu xewee seytaana mer nu gërëm yal nay xew ak jàmm muy mer nuy gërëm ca kawam loo xam ni lii bu saxee jooyam ya sax sunu mbég sax yal na sax dàkk muy jàppoo ka jàppi ndawam loo xam ni lii bu amee ay am teyam ci kawam keppal ñañam yal na am muy xul ci biiri xewam loo xam ni lii bu amee ay am teyam ci kawam keppal ñañam yal na am muy xul ci biiri xewam lu muy musal ci pexeem ak jëmmam ak ñu mu yor yal nay am ak jàmm muy màttoo ko yoo yakawam buurub aras yal na nuy jox yërmandeem ak a jox nga nee la mag canti biiram teg ca canti kawam te yal na xëpp ci nun ñi ñépp barke bu réy ba noppi diw naati mbég jébbal nu mbooti diwam ñu ñépp yal na nu raayas ndiw su tax mu sawar yónnee nu xet guy seral xol def ko ci ngelawam xol yépp yal na ñu gis luy tax ñu sedd sunuy bët seeru luy tax mu bég waa fépp naa mu ñëwam seytaana yal na ni wuwu ngir xolam bu wañax ñu folli kooku ayam jébbal nu wépp lewam wéram yaram gudd fan njël barke àjjana ndam laa daa dagaanaka diisit yàlla waxtu jot mu jox ma yooyule yépp ak boppam ak ngërëmam ma jox ko cant gu genn cant dul mën a jot cantam gu saf gu ko saf saf sàpp gaaya ko saf laa bëgg a saf jox ko jox guy tax lu bon du ma jot moo daa nda yàlla laram jéggal ko yal na nu def nda yàlla jéggal nu gépp muy te boole nu jot nu ñépp yal na nu jot tey jii te jot nu ëllëg xaroonu lépp lu sedd xol nu bokk ca jot moo jot jotal ña jotul moo tax ñu jot lañu jot bay jotulee ka jotal doo ñàkk jot ci lu jot lu jot nga jot ca te kat loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca bayin fër-fër ji moo lu la jot lu jot nga jot ca te kat loo xam ne jot ca jotul doo daw ba jot ca bayin fër-fër ji moo lu la jot gëmal gëmal feddlil gëm yow te gëm mu ci gëm dégal ci sa dége jit sa ndiine waxtu wu jot gëmal gëmal te dalil gëm yow te gëm mu ci gëm dagal ci sa dégee jit sa ndiine waxtu jot yaa baaxe benn te sar cay wéy di wéy ak wéy boo wéy ba wéy mu ku yow yaa neexa way mata way yaa am bu addina ji yaa am bu ajjana jee yaa am bu ñay am bu ñépp ak seeni am bu ba tey yaa aaya faw te kat doo wéy sa ay ji du wéy suuxal nga ñey aaya ñépp ak seeni ay ni la day yow yaa di jant bu jaaxal ñépp jeexale xel demoo ci ak so doxoo ci tenk jàll nga cay yaa bind cay ak lu jar cay lépp yaa gën a rëy ñanaa cay ñañu naa cay menn mbër ngam rëy ñu def nu gaayu la saf yoo saf yu mel na la saf yoo far ñu far la nga am lee nit ñu am la te way yaa rëy te yaa am lu rëy yaa man lu rëy ku la mooy rëyul amul mënul it jéggal nu boole nu may jéggal nu mooy gu nu xam nun ñii ci moy yi nu mooy ak goo ci xam yow te may nu mucc faw ci ay musal nu faw ci gépp mooy te farli nu mooy nun ñii ci moy yi nu mooy farloo ci seeru mu doy te may nu cant gu yeesal gëm yi peq seral xol yépp guy yi dalal xel yépp baaxali mbay ku nekk yal na mbayam yegg ngërëm ni xasar ñu def ca barke te wóoram yépp yal na ko yëy yàlla rafet tabirey am barke yal na nu may aw fan wu ëpp wul ak barke ku tagg ku way ni boo fa bee taw bi ànd ak barke jox nu mu doy boo nee ca sit njariñal taw rekk jox nu mu doy ni boo fa bee taw bu ànd ak barke jox nu mu doy boo nee ca sit njariñal taw rekk jox nu mu doy na taw bi ñëw mbaalu gën ab taw gënal nu ko ñëw yaa man yéen tabe am gën foppi baaya ki ndey jébbal nu cim teppakub xaalis lu mbay mu nelat nu faf la noppal nga faf noppal nu kenn bañ a bay yow yaa gënub taw te gën bay may nu may gu labal mayub taw ak may mbay yaa ëppi jëf gëni fay bub taw ñëwee na rafet bub taw ñëwul na fi gën baaxal ci nun gën ci nun dolleetu nuy may may noo ngi ci say yoxo tey tàllal sunuy yoxo yaa daa fekk ci ay yoxo may guy dolli ndam fari mooy taw ak mbayeg ñàkka taw ak ñàkka bay lu ci am loran njariñ du ku dul yow yaa ko def ni la day loo def njariñ mu jariñ lëf lépp loo ko deful du am njariñ du jariñ lëfi yàlla na nuy ñanga duy bu ñoo ki canta ki ndollen yoo gërëm yu nu saf feesal nu del la kiy xar baaxit musal nu ci dey lu man di def loo man di def na sunuy xol sedd guy yi ci yow te sedd guy yi ci ñépp ak lépp may nu sa way loo man di def na sunuy xol sedd guy yi ci yow te sedd guy yi ci ñépp ak lépp may nu sa way te def nu ñoo saytu ñoo jébbal sa lépp bu wér faw ak sa géppug cofeel ak jaayu tan buy way jëbal nu nun koomi biir ak biti yuy seralut xol faw wa kay dalalum xel tey fegal ku ne wëy saxal nu dakk ci taw féexan digal te ni cas ndam jox nu teg nu ci sàllu mbég nu barama ko wi luy man di am nanu am luy man di ñàkk nu am luy man di am bu nu dee am jàmm am na juréy noorak nawet lu ci ñëw yal nay ñëw ak sunu ndam buy dem banoo ku yiwam yóbbul nu ay wu na rey xiraa nga yal na ne ràpp ak nun nu ràppi ci ñun ñu raw nu ràppenu biir ak biti faw mu doy xiraa nga yal na ne ràpp ak nun ni ràpp ci ñun ñu raw nu ràppenu biir ak biti faw mu doy yow yàlla yokku nu biir ak biti yokku gu biir te sax ci nun sax ci nun may nu jub ak jubi mbir yeneen yekk bu suuxal yekk buy xala ñëw suuxal bu teew ak bu wéy suuxal mbërëg wayu mbër bakkel nu njaag ak i xar baaxam mu ñëw ni fari mbër yépp fab seeni ndam jébbal nu faw nu yor mu ñal te may nu lu seddub xol lu yéemu lu nii dollit sagal ndimbal ak ndam soññ nag ñu ni yor bakkee di saw sàllu woo sàlloo te moo di sakkee wamat ko jébbal nu faw ak fan wu gudd kutur bakkee la gën lépp barkeelal nu lépp lu nuy wax ak lu nuy def te may nu dolli koo te gutar bari yi way jariñub lar yal na nuy amu yiw ba ëpp yiw ña bari yiw ëpp gor sunu ngor bari mu def nu ñu sikkee sikki tey bari lee kay wey baraw xalaam ak xel ñépp faf nu waggar bënnal te bënnal te bënnal dellu bënnati nag përëj përëj sunu digg ak yow mu feese ni ndar baaxal nu baaxal nu baaxal noo ci dellu ca teg baaxal nu fawwu ci barkeb gaaya teewe ba dara musal nu fawwu ci gémmiñ may nu mucc gu sax dàkk ak sa yërmande joo def barke dëgg bu bir musal nu luy tax sunu xol sax ci guy nu sax ci muccakul mucc leekuk sellal ak jubi mbir musal nu luy tax sunu xol sax ci guy nu sax ci muccakul mucc leekuk sellal ak jubi mbir yàlla ngi nuy taaw yu gën yu ñëpp bokk bëgg am te ku ko neexul du ci am ñun ñëpp yàlla nu ko neex yàlla ngi nuy taaw yëfam yu ñëpp bokk bëgg am te ku ko neexul du ci am ñun ñëpp yàlla nu ko neex ñun ñëpp yàlla nu ko neex te dati lépp lu ko neex mu may nu lépp lu mu neex faw saxal ni ci lu neex xam koo ngi neex a neex a neex am koo ngi neex a neex a neex ñii yaari yëf ñoo gën a neex ñoo dàq lépp lëf lu neex yal na nu may nu xam ko moom yal na nu may nu am ko moom yal na nu may nu gis ko moom te mus ko mos lépp lu neex yal na nu jébbal suturaam jébbal nu yaari ajjanaam dik addinaam ak laaxiraam nu am tey ak ëllëg ju neex yal na nu tey ju dikki neex ëllëg ju ñëw yal na nu neex yal na nu lépp bokk neex muy dolli ku baax ak lu neex yal na nu tey jii neex a neex yal na nu ëllëg neex a neex seenu diggante neex a neex fi nun ba dàqal nu lu neex kataytu lépp lëf lu neex yal na nu may lépp lu neex faw te def nu ñu ko neex ñu saati lépp lu ko neex yal na nu lépp lu ko neex dàqal lu nuy safaka neex yal na ko lépp lu nu neex dàqal lu koy safaka neex lépp lu koy safaka neex yal na lu nuy safaka neex lépp lu nuy safaka neex yal na lu koy safaka neex lépp lu koy soobaka neex yal na la nuy soobaka neex lépp lu nuy soobaka neex yal na la koy soobaka neex te lépp la fu nuy bégal loola la yal na ko dogal seral ca guyi sunu xol atte ca lépp lu nu neex ñun yal na nuy ñu ko bégal te yal na nuy ñu mu bégal ñi mu fegal gépp ndogal goo xam ni gii deful bu neex yal na dogal ci nun ngërëm dogal ci nun seddug yaram dogal ci nun yépp yiwam dogal ci nun jàmm ak lu neex yal na dogal ci nun fan wu gudd ak mbir mu yéwén akuk jub ak sori lu bon ak sax ci jaamu gu ko neex yal na dogal sutura ak mujj gu rafet loolati nag ci nun dogal ci nun mbég ak seddu xol ak dund gu neex yal na dogal ci nun mbég yu rëy rëy yu deg a deg ba noppi yokk sunu dig di dig nu lépp lu nu neex yal na dogal ci nuy tool yu yaayu nangoo nangu lool ak fan wu gudd a gudd lool ànd ak yaram wu sax ci neex yal na dogal ci nuy tool yu yaayu nangoo nangu lool ak fan wu gudd a gudd lool ànd ak yaram wu sax ci neex yal na dogal barke ci nun te dogalu mucc ci nun dogal njariñ lépp ci nun dogal ci nun jiitu gu neex yal na dogal ci nun lu neex lépp ak saxuk lépp lu neex dogal sunub sax ci lu neex dogal ci nun jagle gu neex yal na mu sax ci la nu neex lépp ba dugg ak la nu neex lépp ca àjjana ka neex baraw lem ak lépp lu neex buurub aras yal na nu neex kawte yal na nu ko neex jëf ju mu jëf yal na nu neex jëf ju mu jëf yal na ko neex buurub aras yal na nu neex kawte yal na nu ko neex jëf ju mu jëf yal na nu neex jëf ju mu jëf yal na ko neex yiw wu ne man nga koo maye ay wu ne man nga koo tee yiwu na jox nu mu fee dañ yëpp ay mu jëmu xel war nga nu kappañ ñagi mbég boole nu faw ak sunu ñag yépp musal ci luy lor ak saytaane ak lu koy bégal nag yi nu wër boole na nag nag bu rafet bu jag-jag bu nuy musal ci lu bon ak lu nu bañ ak gépp mbugal yaa xam la nuy bëgg ka ñaan yaa am la nuy bëgg ka ñaan may na lu nuy bëgg ka ñaan lépp te def nu ñoo gënal moom def nu faw ñoo gënal te def nu it ñu la gënal ñu sax ci jëf jëla gënal te sax ci wax jëla gënal na nga nu def ñu la jaral lépp te def nu ñoo jaral lépp te def nu ñoo faral ñoo xam ni yow lañu faral jëbal nu yow sunu boroom ngëneeli ceebo yi juróom benn te jox nu seeni koom ak seeni ndam faw nu jël jaayu nu ndam te bu nu xañ ci maanu ni si waane njëriñ may nu ca lépp luy jëriñ lu nu ca aajo it fajal yow bu nu rëcc mukk nun bu nu la rëccit mukk nun te bu nu rëcc rëcc nun bu nu ngërëm rawal ndigal jébal nu cangaku yiwam ci bépp sangaku yiwam ak cib laram bu mu gërëm bu mu fegal lu mu ragal dabal nu dabraana ku yiw ba def ko jàpp koo ku yiw ñu nu ko fooxal wépp yiw mu ñëpp ko raw wépp lëjal di kenn mbég mu wér mu rëy ci dékk ku cant gu rëy bu nuy bégal mbégal sunuy soppete boole nu xajal di kenn mbég mu wér mu rëy ci dékk ku cant gu rëy bu nuy bégal bégal sunuy soppete boole nu xajal anaata may nu ca lu naat lu nuy saxal dàkk ci naat ba sunu tànk yi ni naat ca kër gu jaggañu saxal anaata may nu ca lu naat lu nuy saxal dàkk ci naat ba sunu tànk yi ni naat ca kër gu jaggañu saxal yàlla bu kenn tala mooy yàlla bu kenn jota mooy yàlla bu kenn mën a mooy yàlla bu kenn defu ay yàlla bu kenn mën a jóg ci luy waral mbiram a jag ak luy waral mu mucc bég ñu di ko ñee faw a kaway yàlla bu kenn mën a jëm ci luy waral ñu di ko jam ak luy waral mu ñàkk ndam ak luy waral mu ñàkku lay yàlla na ñépp bokk sax ci luy waral ak cant sax ak luy waral santante sax dàkk ak lu gën lay bayee yàlla ñu mucc ci layoo mucc ci fekki ab layoo te am lu gën fekkeb layoo gënub la yoo gën fay gu rëy yal na nu raw lu dul ngërëm faw te jot lépp ngërëm jot ci tiraanga ak yi dërëm yi la yu dul jeex ki may yal na nu ànd ak àjjana te sax ci jàmm ak àjjana faw ba dugg ak àjjana ci àjjana yi daagoo kéwéy yal na nu bootekat bi boot te na bu nuy tiis ak tiit nu mu puley tiis ak tiit ba ne ca firdawsi bu rëy yal na nu gën jépp jaboot ba noppi gën ñëpp njaboot tépp xar baax ak i mbuut mboolem ña ñuy topp ak roy yal na nu mucc ak i njariñ wër kapp wër gu nuy jariñ nuy mucc ak ay bari njariñ soree ki loolu soree ki mooy yal na nu am mucc ak njariñ te am ko def mucc ak njariñ am ku ñu def mucc ak njariñ ku nuy musal ci ku ñu jay yal na nu mucc ci jayu te mucc nag ci ku jayu ci daraja yi ñu dul jayu tey mucc kay musle ci ay kataaw suuf ak i kaw ak diggante suuf ak i kaw ak ñi ne ci suuf ak i kaw ak seenub diggante laa dagaan ci daraja yi suuf ak i kaw ak diggante suuf ak i kaw ak ñi ne ci suuf ak i kaw ak seenub diggante wala ngaan mu sedd guy sunu xol te dal reteexit sunu xel naatali xol defari xel feetali déeg ak i wagaan kenn këdul gàkk ka gàkk te mën a gàggante ku gàkk yal na nu gàggantee ndamak pépp ak ëreen ak ndalangaan yal na nu may li nu ko ñaan lépp ak lu suuxal li nu ñaan te jox nu lii nu ko dagaan lépp ak lu gën li nu dagaan lépp lépp yal na ni xëpp nit ñépp ñépp xëy ni ci xëpp lew yépp yépp yal na ni xëpp nit ñépp ñépp xëy ni ci xëpp te kooki cant bay kooki cant ci benn jant nu gañe ñépp te yal na wopp ak wépp wépp ay teggi ñépp te sori fépp yal na ñu def nguur ci mbay tefal buur ku bay te may muur baykat yi képp yal nañu maate ci jub gi maase ci ruu ji maase ci fabi gopp yal nan waaja digle jumaa ja may ca jumaa ja ndimal lu ëpp yal nan waaja digle jumaa ja may ca jumaa ja ndimal lu ëpp yal nañu yombal xaalis bi yombal simon si yombal jëf ju ñu sopp yal nañu yombal xaalis bi yombal simon si yombal jëf ju ñu sopp yal nañu neexal pare bi neexal xol yépp neexal jamono jépp yal nañu jox mbég ku ne tefam nag jantum ndamam teg ca digg bopp yal nañu delloo si wér te delloo si doole delloo si jàmm jëpp yal nañu delloo si gis te delloo si dégg delloo si barke bépp yal nañu delloo si gis te delloo si dégg delloo si barke bépp yal nañu jàpp lu yàlla sopp ak lu mu sopp ni mu ko xëpp yal nañu jàpp lu yàlla sopp ak lu mu sopp ni mu ko xëpp سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين man jàpp naa sama xol bii teg fa yàlla bu wér kaw ak fa mboolem ña ko man jàpp naa sama xol bii teg fa yàlla bu wér kaw ak fa mboolem ña koy mokkoo ko jaamu bu wér njagam damay jubadee kay sax ci def lu warul xol baa ngi ànd ak ña sax ci jub te sax ca la war njagam damay ku jiseeful muy fanaane sikar teewul sama xol ne dàkkal ñuy fanaane sikar njagam bu guddee ma songub lal mi xam mu ca kaw xol baa ngi ànd ak ña dul mu seeni lal ba fajar njagam dama boole mboolem guddi yépp rayit xol baa ngi ànd ak ña dundal seeni guddi bu bir njëgam bakkan bi damay nootee ka not aka war xol baa ngi ànd ak ña koy not nos ko jàpp ko war njëgam damay waaju ay noonam notit dumatee di soppa kay sant ñuy xar boppi noona ka cor njëgam damay ku na bëgg koo xam ni ñépp ko man xol baa ngi ànd ak ñërëy aw fit ñi miñ bari ngo njagam damay waaju sellul sellalul du matee di sopp ñay sella kay sellal fu nekk defar njagam damay dox di mànkee kay tayee la ka def xol baa ngi sopp ñamat faj gàcce jiitu sawar njagam damaa ne fi suufit maa ngi soppa kañee mboolem ña nekk ca kaw ñoo tedd ñoo jara jur yàlla ca bokku ci baaxu yàlla gën ca buur te jur ñu bokk ca ñoom ak jàmm gën ca buur faf naa la jébbal samay mbir lépp ngoogu fabal te faf ma saytu bu wér sab saytu moo gën a wóor maa ngi samay mbir a ngi jàppal yoral defaral baaxal musal wattu ñàkkeg lépp luy taxaruur dakul mooy falangal lor joo xam ak jum xam xetul nu waa mew nga nee la mbégu tànduwu lóor ñotil nu lépp lu sedd xol mu ñëw nu nuyoo jàmmante jàmmoo ni dàkk ak jàmm juy fegu toor ñotil njariñ la ca makaakiy madinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yit nu yow sunu buur ñoddul njariñ la ca màkkaakiy madinatu ak njariñ la nekk ca tuubaa yit nu yow sunu buur jëbbal nu yiw wa ci suuf ak yiw wa nekk ca kaw ak yépp yiw wu ñu def seenu diggante nu moor mboolem njariñ yi ci kër gi gépp ak ya ca kër géeg yépp yàlla nañu nuy lew faw tey sunu muur roofal ci nuy faw bépp xam-xam ak njariñam te yor nu sab yor a gëm sa fopp yor yat nguur musal nu faw ci buur ak yat wa yàlla nanu muy teeg ëllëg dal sunuy bañ bopp toj wana yuur jëbal nu mucc gu teel ak barke ak mbamu sax ak yërmande dex ju nuy tàbbee ka féye ka noor seppil yi ci duniyaa jépp ak yacalaa xiraat jébbal mu faw ak salli cant yu suur yàggal mu dina lool ak jëf ju yiw ju la saf ju nuy saxal ci yow ak loo sant cant buur lislaam a gën lépp yal nay dund faw ak wér tey mucc faw ci wopp ak dee ka musle bu wér lislaam a gën lépp yal nay dund faw ak a wér tey mucc faw ci wopp ak dee ka musle bu wér moo mag di mbir moo di sàllu yàlla yal na ko fab jébbal nu faw ak i yéeréem ak kuréel yu nu wër moo jar di sonnee ka sànkeek dund jar di yafal tey fonk kay wëgg kay ñàddal di wékk ka wër moo jar di sonnee ka sànkeek dund jar di yafal tey fonk kay wëgg kay ñàddal di wékk ka war ñun ñëpp yàlla na mu koy sonnee ka sanga ka yor tey dox di fopp gannaawam gaakaraaya ka wër ñun ñëpp yàlla na mu koy neexal ne dàkk ca lay waral mu xëy ni fataas ak jàmm suure ni wer ñu ñëpp yàlla na nu koy suural musal ko ci wam te yàlla na nu ñu ko dul fàttee ka wàcce ka war rëy diine tuuti yaram man loola moo ma gënal sew diine rëy aw yaram yal naa wayaf te sawar yal naa sewug weñ te rëy nag diine loola ku tur xam yàlla am ko ragal koo jàdd sax ca la war xarit xarit yafalal yow mii sa diine te bul fexe dogu ko la kay yafloo ko diw sa kawar lu man di am sunu digg ak yàlla yàlla na rafet jag faww sax ci nañax gën foppi lam fa ci weer yanaa di waaju ko saf man ñii te lépp lu may def loola yàlla na ko saf saf gaaya jekk nga war yanaa ni dàkk ci lislaamam ji faww bu wér ñi faf ni dàkk ci man muy dund faww ak wér xandoor ak gópp a ngi añ baa ngi gàncax a ngi xos gaa ngi yal na mu am jàmm ak nawet bu rafet xandoor ak gópp a ngi añ baa ngi gàncax a ngi xos gaa ngi yal na mu am jàmm ak nawet bu rafet ku nekk yal na rafet mbay teel a sébbu lu am tawféex mbay ëpp ndimmal ñépp fàppa ko fit ku nekk yal na lefoog am doole wér amuy way waaru waare sawar fam ndam la yóbbu ko fat ku nekk yal na ëreenam jépp ak dugubam bare bare mbay te nangoo nangu teg celewet ku nekk yal na manu toolam te ëpp ko las bu xeete yiwu ñu déggul fenn yiwu ko wat ku nekk yal na ñu def ci toolam ak ci këram njariñ lu jar di tëjoo kay dugg àll ka wut ku nekk yal nay dërëm yuy dikk faw te lew sax cib loxoom ak jibaam ak barke muy notu nit ku nekk yal na mayam gay yokk faw te sax cantam ga sax ndolle nam sax muy ba ngéer ak not ku nekk yal nañu nangul ñaanam ak lu mu jëf nangul mbayam dolli tawféexam musal ko ci cat ku nekk yal nañu ful dooleem ak yaramam mu mel ni as ndore nag su tëgg jàpp mu cet ku nekk yal na ne dàkk mbëg te dëkke ni tax kawar ga mel ni këriñ xol bay niroo ku këyit ku nekk yal na xolam bay sedd faw mu sax ci mbég ba dugg ak mbégam firdew si lépp rafet nawet bi yal na nu fa nun jonkalam bi yanu te fa ndamam lépp jël waa fépp ñëw nuyu nu yamkat bi yal na ni yëkkat jonkaloob ña ko saf ak jonkaloob ñamu saf yannoo ci mbég mpéenu ñun ñëpp yal na nu suuxatkat bi suuxate mbég te suuxat ak waame gàncax gépp ndam wuyunu tawam nga ne la nga ñaay ak barke yal na ñëw ak seddu xol ak jàmm juy tax lépp ay sorinu farkat bi yal na faral jaamam ñi lépp maral te wàcce waa mi fépp yiw yi mbég la renu fu mar wi dem yal na fab taw dal di dem bu ko far ba ñépp ko xam ni lu dul canta ngërëm wërunu jongante am na fu ne ku dàq yar nanu jong mboolem ña jong raw ña raw sut ron yaron yaronu jamaale it am na ak waalam te yal nanu jam jamaale yépp te jam rab way waral nu tono waral njëriñ am na foo dem waaye yal nanu raw lor faw dëkka njëriñ ñëpp diine ñibbitanu ñu yépp yal nañu dëkka nun nu dëkk ci ndég te buurakum koomam ak cantam gu sax jotinu ñu ñépp yal nanu raw gàccee ko ay jotu yiw ngir gudd fan rafetu mujj boole ñépputinu tawum ndamal ndég bu rëy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay ñépp jub dag yal na ñëw ganenu tawum ndamal ndég bu rëy boo xam ni bii dana tax xol sedd mbay ñépp jub jag yal na ñëw ganenu sa ngëstiraa nga su lor dul tàbbi yal na mu wër ba kenn du feeru ku tukki dem ba ñëw tanenu nawet bi ak pexe yépp mbir yi yal nañu jub loola mbiru nu gaaya jóg ngir yàlla ñëw nuyu nu buurub aras yow la nuy làqoo tëri kilifeek lotoo ci lëf bu fi lub xol bañ di jaar ak a feek diirub li ngay dund a kay def buur a kay bari laf ñun deenu may suturaa kay dolli jàmm ka déet soril ni it yépp ay waa xam ni teg nga ci bët te may nu waame wuuréy wuy taali déq ki déet ñu yépp dolli nu mucc ak ndam te yokkunu ay angaara ki jaaga ki daaraa ki dooma ki jeeg nun def nu ñoo saytu ñoo saf ñoo defar ñu ra saf ñoo sant ñoo may ngërëm ñoo xam ni raw nañu jéeg ñun def lu ñoo saytu ñoo saf ñoo defar ñu la saf ñoo sant ñoo may ngërëm ñoo xam ni raw nañu jéeg garab gu meññ gu seddul xol nga noo di lafañ yey raama kay jëkka mus cëggam ya gaaya ca yéeg miñet ma nekk ca kaw koo xam ni kii dañu koo xëy fab tegal la fi suuf ak jàmm raw nga ñu yéeg nun noo ngi lay sant gépp cant yow ki nu teg ca kaw ñett yi ni garab faf tii ni baara ki néeg njariñ lu yéemu lu sedd xol lu rëy li nga nii dig saa su nekk ka jox yow dong dong ko néeg yow daa la dox sunu digg kuy loree ki loram te yaa nu boole ki ndam dénkoonu yax bu ñu ñeeg ngeen jib sëriñ nga ma jox ak ngeen ji baaya ki ndey am ngeen ji mbooloo mu déeful bés ba kenn ca keek te rekk biirug li ngay man yow mi dul tele bis barab bu nii ne bu fa yéefar di jaaraka feek jëndal nu bopp bu yaa boo xam ni lépp a taxaj fajal nu it jëpp lor ak aajo yaa mën a faj jëbal nu bopp bu yaa boo xam ni lépp a taxaj fajal nu it jëpp lor ak aajo yaa mën a faj jëbal nu it ndab lu yaa loo xam ni lii dana def buurub aras taw ak nguuram gu yaatu gi kaj jëbal nu xol bu rafet loolit bu mucc ayib boo xam ni bii yàlla lay soxlaa ka làmba ka dak jëbal nu it te ju suuxal jépp it te ju rëy musal nu ci jëm gannaaw ak lépp luy taxalëj jëbal nu cant gu sax goo xam ni lëfu du ko dog musal nu it ci barab buy ndam di néew ak a gëj jëbal nu jàmm ak lu nuy jaamoo kasante bu wér te joxu nu xiiwal yu dul jeexal njariñ yu nu dak jëbal nu bandi njariñ jëbal nu teeni njariñ jëbal nu géeju njariñ doyloon nu wëlli ci got jëbal nu mbóoti njariñ jëbal nu lépp njariñ jëbal nu kay def njariñ jëbal nu wuy wu ñu toj jëbal nu mbooti dugub ak mbooti gerte yu rëy jëbal nu taaxi nga nee lañ néegi ndég yu ñu fut jëbal nu dëddugu mboolem gaayu dëddu yanaw ak yar bu rëy bu rafet buy teenu dégg farag jëbal nu yar bu ñuy yor ak yar bu kenn yoragul te def nu gaayu la deg fawit ca seeni dégit jëbal nu barke bu deg ak topp yàlla gu deg degal nu fawwuk ku tëm nag dal nu fenn nu toj jëbal nu barke bu deg ak topp yàlla gu deg degal nu faw ku tëm nag dal nu fenn nu toj jëbal nu it faw biir ak biti mucc gu dekk te def nu aw doj wudul dee sax ba dee si ko tag jëbal nu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gu nu saf boole te aajo yi faj jëbal nu it gépp kee goo xam ni saf na la yow ak gépp kee gu nu saf boole te aajo yi faj saxal nga fi man mi fukki yëf yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom saxal nga fi man mi fukki yëf yu amul moroom gërëm naa la ngir yaa tax maam lu amul moroom samay fukke ngi xaalis njariñ ndam ngërëm xorom wi rek sawaran njël barke raw maa fi gën boroom ku sax nga ku nguuram sax saxal ma ci yow ki sax saxal ma ca kaw mbëri yépp yow ki nu boole tiim saxal ma ca kaw ni jant buy jant dong wër mu nekk ca seenu digg tey ayaleeka moom saxal ma ci tawféex ak ndam ak suturaaku way teer nu ba duggal nun ca àjjana ñépp luum faral nu sunuy mooy yépp xëpp nu faw it samay yépp biir ak biti dolli nu koomi koom musal nu ci bàkkaar ak lu koy jur musal nu it ci bekkoor ak ñàkk ak lor ak ay soril nu juum musal nu ci noppi nott bi pénc yëg siwul musal nu ci laajub sang jur ga ci ab loxoom musal nu ci lott ak lépp luy taxa mos nu jik sëriñ cig juróom dàqul nu seytaane ak soloom sunu sëriñ ak mboolem sëriñ sépp yal nañuy amuk jur ci nun nuy am ngëneel ak ngërëm ci ñoom sunu xol la koy neexal seral ko seral gu wér ci yàllaa ki jaamam yal na am am gu sax gu woom sunu xol la tax muy talli ñay te sedd nag ci yet gu ne mbër may atte yal na ko atte moom sunu xol la tax muy talli ñay te sedd nag ci yet gu ne mbër may atte yal na ko atte moom mag ak ndaw ga nag dëkk ak ku sopp ak ku soppul ak ku baax ak ku baaxul yal na mbër def lu rëy ci ñoom mag ak ndaw ga nag dëkk ak ku sopp ak ku soppul ak ku baax ak ku baaxul yal na mbër def lu rëy ci ñoom lu sedd sunu xol dal sunum xel soril nu lor saxal mu ci jàmm ak mbég mu mbég dul kawee sa tiim kanug waane waa ngi tàkk naa ci te yal na jam ci fàddu la rey soppee ki bañ ñépp bokk luum ku man di bañ ak kuy sopp yal nañu fab la mat xolam yéene ci cant ak tawat lépp sol ca moom ka daa neexal xol ñi bañ ak sopp fawu yal nu neexal sunu xol ci bañ ak sopp akub loxoom ka daa boole fépp ak ñépp jox kenn dong yal nu boolee ci fépp ak ñépp jox nooti muy boroom kadaa yokku aw fan yal na yokkati ñépp fan te yokkati ñépp bu wér gu nee ci amul moroom kadaa yokku aw dig yal na yokkati yépp dig te yokkati bépp dig te yokkati mépp koom kadaa yokku mbooloo yal na yokkati ñépp nit te yokkati ñépp jub te seen ñépp xeetu juum kadaa yokku aw yiw yal na yokkati ñépp yiw te yokkati ñépp mucc faw njariñ lu woom kadaa yokk nit ndam yal na yokkati képp nit ndam ak ite juy jébbal boroomam ndam ak tonoom këlottul ci lëf yal nay seral suñu xol bi nun ci soppeeki noon ak seeni am jàmm yépp ñoom këlottul ci lëf yal nay seral suñu xol bi nun ci soppeeki noon ak seeni am jàmm yépp ñoom buurub arab yaa mata mus yaa dàq yow lu dee si mus sa cant yal nanu ko mus te mus nga mus sa àjjana buurub aras yaa mata mus yaa dàq yow lu dee si mus sa cant yal na nu ko mus te mus nga mus sa àjjana sa jàmm yal na nu ko mus sa jëmm yal na nu ko gis gisum ngërëm gu wér gu fés te am la am sa àjjana yow ku la mus mus na dara ku la musul musul dara musal nun ci yow dara ndaxte nu dëddu àddina yaa am lu dàq àddina fafal lu dàq àjjana sa jàmm dàq àddina sa jëmm dàq àjjana tabal na faw ci sa nguur gu rëy gi tabalal sa nguur gu rëy gi it ci nun bu wóor boole na it ci àjjana yaa mata xam yaa mata am lu man di xew nanu la xam lu man di am nanu la am te bokku tab di àjjana yërëm na yërmande ji sax jéggal na it njéggal gu sax musal na it musal gu sax bu ngeenu mbég ba àjjana gërëm na it ngërëm lu sax sopp na it sopp gu sax dëgal na it ndëgal gu sax dàkk ku yiw ba àjjana sa ndég la nuy yoota kadiir rikki jamal nu ko buur jamal nu lépp lu nu diir li dale fii ba àjjana yàlla nu teq dem lare lare bu gën bépp lare bu ku ñu xam masa lare wat addinaa ki àjjana addina yàlla na nu ko jam àjjana yàlla na nu ko jam jam yàlla jam yoneen ba jam sëriñ bi jam waa àjjana yàlla nu yàlla may ndawal yoneen ba it may nu ndawal sëriñ bi it may nu ndawal ñu bokk may nu àjjana nawet bu boole nu musal musal bu gën gépp musal bu nu gënal gépp musal te gën ci nun gépp musal nawet bi boole nu musal musal bu gën gépp musal bu nu gënal gépp musal te gën ci nun gépp musal nawet bi nun ñëpp a ko soow te nun la ñuy boole di soow ñëpp a ngi nuy boole di soow yàlla nu feesal ba desal feesa ki ndam ba wala ngaan feesa ki may ba wala ngaan feesa ki ndég ba wala ngaan mucc le mucc mos mosal ñun ñëpp yal nañu wasal barke ci ñun bu ñu fesal te mbubb moo xam ni ku sol bég faw yal nañu ko sol loo xam ni képp ku ko def mujj si yal nañu ko def def buy waral kenn du nu def daraati mukk ka desal yal nañu am ci jépp wax duñu nu wax lu gëni wax lu nuy jëriñ te lorut ña wax ku te ne dee fi ko gasal yal na noo am ci jépp wax duñu nu wax lu gëni wax lu nuy jëriñ te lor ña wax ku te ne dee fi ko gasal wax yëpp yal na ñu ni dig def yëpp yal na ñu ni dig def yëpp yal na ñu ni dig dig guñu xam guñu fësal ka sedd xol yal na ni ciix la sedd xol ni nu ko foox musal nu sin mam ci xoox muy fas fasam bu mu fasal yàlla nu boole def wurus wu mu fasal yépp wurus musal na ci ras ak ci rus te boole bañ yépp rësal yàlla nu xëy jébbali may yi dal xel ak waroomi may te saa su nekk yàlla na cay xiti tonoo ka wis wisal yàlla nu wis waame yi lóor te jàpp bii nawet ku lóor ba mu rafet rafet gu wóor waa fépp ñëw fi nun wisal ku nekk yàlla na ñëw fi nun jàng fi nun dégg fi nun jàpp ci nun topp ci nun faw ñu boole nu musal ku nekk yàlla na ñëw fi nun jàng fi nun dégg fi nun jàpp ci nun topp ci nun faw ñu boole nu musal ñépp nga yor ci sab loxo ñépp nga yor ci sab loxo fépp nga yor ci sab loxo yow yàlla na ngay sunub loxo yàlla na nu tax ci sab loxo ngay fa bi ndam ci sab loxo di teg ci kaw sunum loxo nuy waajuram ba ti yoxo nanu ci suuf ak asamaaw ak gaa yi suuf ak asamaaw waa ma yi tukkee asamaaw ñoon ngërëm lu dul tuxu yërmande yàlla na wala nga am ku nekk am la mu dagaan di sampa kay fóota kanaan xol sedd mar yépp wéxu wallu ka bind asamaaw yal na bawoo tey asamaaw dikki fi nun bu gaaw a gaaw seytaane yuuxu sex loxo li mu ji lépp yal na sax te barke it yal na ci sax dàkk ngërëm te sax a sax ci nun nu sax ci sa loxo wala ga yal na ñëw bu gaaw waame wa ñëw bu gaaw a gaaw xur yëpp taa bu gaaw a gaaw mooy ndam faw ak loxo naxal yi sax ca àjjana jëm yi sax fi àdduna ñu sax ci yoonu àjjana bani jataa xam yooyu xoos naxol yi sax ci àjjana jëmm yi sax ci àddina ñu sax ci yoonu àjjana bani jataa xam yooyu xoos àjjana daala mat a jëm yal na nu ànd ak ña ca jëm aw xàllu cant wa ca jëm dee ba tàbbi ca ni muus yal na nu sooboo ki ngërëm ngërëm mu jum ma ñu gërëm te dox ko dox bu ñu gërëm ba yegg tey béel ak xuus àjjana moo di kër gu wóor ñete nañoo ne ci lu wóor ña fa dajee daje fu wóor yal na nu daw ba ni ca xuus yal na nu benn wuti ko fecc ku benn wuti ko bàyyi ku benn wuti ko boole ndegam yépp ni muus yal na nu cantam ya ni muus xeegam ya bokk ni muus nu boole leenati ni muus ñu ñëw nu booleeti ni muus yal na ñu boole ay ndegam te boole fal wi njariñam ak yëfam ak yiwam jox nu nu def ci sunu mbuus yal nañu fab lépp njariñ lu fa ne boole ko taxañ jox nu ci xar baaxi sëriñ ban ba ki raw géej ki duus yal nañu fab lépp njariñ lu fa ne boole ko taxañ jox nu ci xar baaxi sëriñ ban ba ki raw géej ki duus yal na li tàmbalee filee nu ne ba àjjana jëlee neexe ne àjjana jëlee cunum te ñépp di nu buus yàlla na sax ci umpule loriñ ci àddina jëlee ak lore ca laaxira jëlee yépp te raw dee fi soos yàlla na yàlla faf gënal sunu bakkan faf mu gënal sunu kër ak jépp alal daqal nu fapp ña mu soos yàlla na mboolem buuri biir ak buuri biti ñee buur muy gëni baadooloo ci buur bani ca firdaw si yoxaas yàlla sunu xol sedd moom xaw ci yàlla ki nu moom sedd ci mboolem ñi mu moom dëkk ci nux nux ak ci naat xol yàlla sedd nux nux yi bañ yëpp rët di yox yox yi seeni xolit di jax jaxi ñuy bon a kay dox di bonaat ñi sopp lañ ñi sopp ñoom yàlla nu am jàmm ci ñoom ñépp te xol sedd ci ñoom sedd ku tax mu gërëmaat ñi sopp lañ ñi sopp ñoom yàlla nu am jàmm ci ñoom ñépp te xol sedd ci ñoom sedd gu tax nu gërëmaat xol ñépp yàlla ñu nu ñeel jëm yi yàlla ñu nu ñeel njariñ yi yàlla ñu nu ñeel saasu ne yàlla nu gëmaat bis bu ne yàlla nu xamaat bis bu ne yàlla nu amaat bis bu ne yàlla nu gëmaat yàlla te bokk te jëmaat moo yor njariñ ñépp ak loxoom yàlla nu jébbal ak loxoom njariñ ya nekk ci loxoom yéppal ngërëm te yërëmaat yal na yërëm te yërëmaat yal na gërëm te gërëmaat yal na xorom te xoromaat yal na safal te safalaat yal na jubal te jubalaat yal na musal te musalaat yal na dëggal te dëggalaat yal na jafal te jafalaat jëfal na yal na jëfalaat fal na nu yal na nu falaat ful nanu yàlla na nu fulaat ci darajey ñoomu fulaat yàlla na soxam ba jubati pex pexi ju mbay jubati mbir yépp bokk jubati ñu boole ndam yépp jëlaat yàlla na soxam ba jubati ba pexe jub mbay jubati mbir yépp bokk jubati ñu boole ndam yépp jëlaat walam ga yàlla na ñëwati cantam ga yàlla na ñëwati naatam ga yàlla na ñëwati tànkam ba yàlla na fi ni naat yal na ñoŋ fawte naat xañu na ñoŋ fawte naat ñafa na ñoŋ fawte naat ñu dëkk ci ñoŋ ci naat yal na ñoŋ fawte naat fu mu ne ñoŋ fawte naat ñafa na ñoŋ fawte naat ñu dëkk ci ñoŋ ci naat buram jébbalum na wet jébbal nu dund bu rafet boole ca dund bu rafet ñoo war a sant bu rafet buuram jébbalum nawet jébbal mu dund gu rafet boole ca dund gu rafet moo war a sant gu rafet buura rafet jëfam rafet joxe na lépp lu rafet dàkku na it géppug tawat dalal li xel dalal li fit xam-xam bu wér moonu ko jox anam bu wér moonu ko jox sañ-sañ bu wér moonu ko jox lépp njariñ moonu ko yëpp sutura am nanu ko lool tiraanga am nanu ko lool daraja am nanu ko lool ñu wone xëy nanu te jot yërmande jox nañu nu ko lu bon toril nañu nu ko ku bon tegal nañu nu ko faw ak araam ak lori cat xol yépp nee nañu gëriif yaram yi nee nañu gëriif ngir mbir mu réy mi ñu nu roof rey ñu nu daalor ak a sot sopp yi ñépp bég nañu ba ñépp ñépp nar nañu seeni xolit wañax nañu dootuñu am seeni mébét far nañu lor ju nu amoon ful nañu yiwu nu amoon fekk nañu ay yiw fi jëmoon may gu ne teg nañu ca bët mag ñu ne dem na ba nu fi ndaw ñu ne dem na ba nu fi kenn du ne nun yàggunu fi yal na nu ëpp ñëppi at yal na nu ëppi at ku ne yal na nu ëppi may ku ne yal na nu ëppi ndam ku ne fopp te gën ku nekku nit yal na suñu njariñ di des muy def yiw te di fi des faw ak a sellal yépp sas fu nekk añ di nu fa wut yal na nu raw géppug tawat dëkk ci ndég noor ak nawet tey baax ak ay baaxum nawet sunu teeg ëllëg rafet yal na nu jekku ndaw ñi te jekku mag ñi te jekku ka bind ñépp yal na nu jëkk ci yiw te jëkk ci ndam te jëkk ci jàmm ñépp yal na nu mujj ci jub te mujj te kaw te mujj ci dun bi bépp yal na nu yokku barke te yokku wërsëg te yokku cant gópp yal na nu tedd am fan wu gudd wu gën a gudd fan yépp yépp yal na nu taawu mbir mu ne taawu may gu ne taawu sutura sépp yal na nu fenk ak ndolam te fenk ak doole te fenk ak tedd nga jépp yal na nu yàlla ak gaayi yàlla yaway ci yàlla ni xëpp lépp yal na nu mbër ma nu jàpp mbir ma te ñu ca ngir ma safal nu sàpp yaa na nu gaaya jébbali laaya andooti laaya ndam ni nu ñebb xol yal na sedd bëgg na sedd bu mas a sedd te dëkke xépp xol yal na sedd bëgg na sedd bu mas a sedd te dëkke xépp yal na nu dund am xol bu dund bu sedd sedd bu yi ci ñépp yal na nu dund am xol bu dund bu sedd sedd bu yi ci ñépp